nekk parent détenu mais nekk conseiller municipal nekk bàjjanu gox musuma présenté woo noonu mooy dinaa ko présenté wu tey ndax nit ñi ñëpp dañoo jàpp ni ñi ñi jàpp waa Pastef kese lañu man sama doom Pastef la bokk mais man taxawu Dakar laa bokk loolu daf ci jara leeral am na ay waa APR mais tey li ñu mën a sentir foofu mooy euh, Macky Sall dafa tas Sénégal ndax man sama xaaju famille man man maa nga dëkk Tiwaawan sama xaaju famille yëpp APR lañ bokk sama xaaju famille yëpp mais bis ñàkk na leen depuis jour ba mu tëyee sama doom kaso sama doom lu mu def organiser anniversaire Sonko ñu publier ko may jot ay menaces fu nekk sa doom bi nañ ko arrêté dinañ ko lii dinañ ko laa man leen waa far moom kañ lañ ko doon bañ ci mim réew biñ koy jël si sama kër à 3 heures de matin euh, matin jàpp quatre heures de matin daj ji sama kër ko wax suuf ci jël si ben xalé bo xam mi ngi judd 97 yenn ko yobbu melni ku def njombe bo xamanteni da ngay yému ci aduna ndax toroxal ko ci ko xam dang ko jur ko wara juré yar ko ko wara yaré tagat ko fa doomu gori fañ tagaté doomu gori bu metti torop ñuy dundulu metti ci loo xamante ni injustice kese la tegu loolu dafa jeex dafa war a doy sëkk bi ma ñëwee ci collectif bi bokk si fekk fi ay gor fekk fi ay yaaram fekk fi ñoo xam ñu gëm yàlla ñu bokk naqar di dund comme man li may dund boo ñëwee lépp loo nekkoon ci sa xol lu bari dina ci wàññeeku ñu ñëw ànd bokk ndey bokk baay mais boo demee ba gis profilu xale yi ñu wan la xale yi nga gis xale yi ak li ñu tuumaal xale yi sa àddina day tukki dama yaakaar ne nguur jarul yenn nguur jarul fekk ku sang doomam ba set jàngal ko alxuraan jàngal ko école jàngal ko àdduna nga ñëw naa ko yow terroriste nga wala nga naa ko xawma force spéciale yu kenn xam léegi nag tey yaa ngi ba a yaa ngi bëgg a ragg sa bopp dafay yomb na mu def ba tëj suñuy doom na def noonu ba génne leen ñun sunu yoon nekkul ci lu muy lu muy xalaat ak lu mu bëgg a def ay am nag si moom la intéressé moom la ko moom moom loolu moom la intéressé moom ñun intéressé wuñu suñuy doom ay gor lañu ay ay jaamkatu yàlla lañu ay liggéeykat lañu benn xale taxawaalu ci koo ci gis am na ci lu mu jàpp man sama doom moo ma doon dimbali xale bu ndaw la mais billaahi wallaahi moo ma doon dimbali di dimbali papa ana mu tey ñu ngi ko tëj ca kaso ba loolu dafa ñaaw dafa bon dafa war a jeex ci mim réew far musu fee mën a ñàkk ana ñi nu rey waaw léegi ñoom xaa amuñu ndey ak baay léegi ëllëg après fulaas xa xaddeen mu mujj fan léegi nag ëllëgat si bi kenn ñaan ko yàlla waaye lu mel ni su amatee nit defati lu ko neex après indi beneen waa teg ni nañ def nangam après léegi nag ëllëg nag ñun ñu nekk bëgg a dee ci buumu njaam ñun ay gor lañu bu ñuy dund dañuy gore bu ñuy dee dañuy gore moom mi mani mani ba tëj suñu ay doom na mani mani ba génne leen doomi jàmbar yi nga xamante ne da leen a rey wala ak ku leen mën rey mais ci ay manifestation la ñu la seen bakkan dese loolu alaa kulli xaalis faw mu leer mu leeru tey leer suba ndax ay yaay leen jur boo juree sa doom li ngay xalaat ëllëg mu yor la ëllëg mu toppatoo la loolu kese ngay xaar waaye doo xaar tey mu dem génn fenn ñëw ñu bool ko wala ñu ñëw jël sa doom teg ko sa kaso bàyyi ati at ana lim bàyyi ginnaawam man keroog biñ ne euh, prison ba dafa yëngatu man tam sama tension dafa wàcc dama feebar boobu ba tey kenn gisuma fii maa ngi doog a génn tey ci conférence de presse démb laa dégg sama doom démb laa koy doog a dégg ndax asthmatique la xam naa la muy dund foofu chambre ba mu nekk chambre trois la nekk chambre bu mett après nga déggate ñu ni sa doom gaz nañ ko après nga dégg ñu ni tiré nañ fa ay bal yàlla moo xam ndax ñu dugguñu fa waa léegi nga nekk yaay jur sa doom yar ko nga dégg loolu nan ngay réagir dafa metti dafa metti lii ku ko waxul joxoñ ko dafa metti seetaankat yi ci biti nag dañoo am ay doom ñoom nu ñu yaree seeni doom ñu noon lañ yaree suñuy doom li ñu dal ñaanaluñ ko kenn mu daal kenn waaye mën na dal ku nekk ñun nag samedi incha allahu rabbi bu neexee yàlla suñu bakkan jaay nañ ko Macky Sall jaay nañ ko ko suñu autorisé incha allahu rabbi dinañ mars suñu autorisé wul dinañu mars luñ ci góobe gar ko suñu deewee ñun ay jullit lañu dañuy jàpp ne dañoo jee dee ci jihaad ndaxte nag gis nga nit ki am na foo xam boo fa tolloo da ngay dem ci sa ngor ba mu jeex tàkk ñun xam nañ doom yi ñu jur moo tax mu jaral ñu lu nekk ci àdduna